salut Daba ça va ça va Koul yaa ngi ci jàmm dem déggante waatuñu wala xaar ba sonn j'étais fatigué xam nga boo tax defaatu wala si quoi mais waroon nga def si nag de j'espère que yaa ngi loolu xew nag yow mooy gis naa ligne rek tu veux up parler ou quoi di xew loolu tey bëggoo mu demee woon nu fa demee woon coach coach coach tey moom suma bis la yow la kan oo jum wala lan wax naa la tey sama bés la bi xalaatal kan la doome kine lan ngay def sa téléphone yaay yow yow sama yaay xamul nu muy utiliser téléphone tamit yow fan nga nekk da nga dem yow mënoo jëlee sa téléphone yaay dëgga sa téléphone yaay eh yow ni nga mësa wax sama yaay yëpp muy sama téléphone transféré naa ko sama téléphone ni nga mëna tok wax ak man ñu waxtaan mëno ko tamen nga dem ma envoyer ko sa jabar rek ben nga ci def tey kene tega sa téléphone ya depuis kañ la xalé di dulu waxtaanu mag wa yow kan nga nan xalé yow man ma sa xalé yow man mi am sama 19 ans 8 septembre bi passé nga naan ma bu mu ñaar de. Eh, ma wax ak moom tey dafa war a ñëw sax ki nga bëgg jox ma sa yaay ma wax moom tey dafa war a ñëw ah man xam na sport boobu di <laughs> li wala sama yaay di yuuxu sport boobu kañ bëgg xam na ko bu baax a baax xanaa déggoo ma wax lépp loo mës a sama yaay rek mu sama téléphone kon nag xam naa sport bi tamit. yow xam nga bu baax ka baaxoo yow yaa sama yaay tas sëyam ñoo toog fii yow xam nga li may wax bu baax. mais yow lan ngay wax nii joxe téléphone bi ngay am looy wax. eh dama bëgg nga wàcc sa baat dégg nga ñàngal bi ginaar nag saful paaka dama bëgg li ngay jox sama yaay nga jox ma ko tey ndax moom nekku fi. mais ki ne lan nga bëgg dan laay jox sa yaay a jox. eh yéen li ngeen di wax maa ngi koy gis yaa ngi may dégg maa ngi gis sama yaay naan li ngay dëgg si gën gi moo tax mu bàyyi sama papa ñëw si yow comme bul dof. mais kenn lan ngay wax ni man xaw ma li ngay de maa ngi sama yoon nag. yow li may wax xam nga ko bu baax a baax yow yaa commencé lii ak sama yaay avant muy divorcé nga ñëw bëgg fee nekk di wax. li may wax xam nga ko bu baax a baax bis boo dof dofloo nag ba kite fii nii ba kite te waxoo li may wax ni d'accord ci maag yow la sa jabar lay envoyé yëpp. mais kene kene dalal dalal wàcce lépp suuf ñu def nànk rek ñu waxtaan bu ñu waxtaanee dinañ jubóo bul envoyé dara sama jabar. ah kon yaa ngi doog yaa ngi doog a mën a neexal li ngay jox sama yaay ba mu jaral ko ay yuuxu ba jaral ko mu tas ñëw fii toog la bëgg nga jox ma ko bànneex boobu laa soxla cey xale tey yéen jaaxal ngeen ma de seen mag yi bëgg rek ngeen bëgg ak seen yaay mais nañ waxtaan rek bu ñu waxtaanee nañ ci woo def parce que ay dëkkandoo lañu maa yoo xamante nañ xam nga sama gaale xam naa sa gaale léegi bu ñu waxtaanee rek nañ jéem a solution quoi ah d' accord nga mais yow yaa ngi xalaat tuuti sa yaay bu gi déggee vocal yi nga ma envoyé nii yaa ngi xalaat lool <laughs> oh loolu daf may neex <laughs> loolu lañ ngay def nga waree nangu nag dafa yàgg waaw yow sama yaay ngay tiit lan la xam ci téléphone xamul daara ci téléphone suma ma paree lépp dama koy dindi bul tiit. waaw ah, léegi coo wax mën na laal naka la rek ak ni muy demee. ah xoolal lépp suma loxo tey moom dara du yomb guddi tey ji <laughs> dina neex ba romb neex bu tiit bu ragal lépp maa koy gérer bu ragal day waaw léegi amul benn problème comme ni nga ko bëggee rek mais man ak yow bu ñu def ba pare lépp li vocal ak message bu ñu wax man ak yow dama bëgg nga supprimer ko mu set wicc mën na nekk. waaw loolu duñu boole loolu duñu maa ngi nii di ko dindi ah yow jaral nga ma lu ne xaaral